loolu mënul nekk c' est impensable voire même inadmissible loolu mooy wax ji. état mënut a def lépp les tâches sont diversifiées. li waay mën a def bëri na. lu waay mën a am bëri na. lu waay mën a yëngatu bëri na. financement yaa ngi fi lépp a ngi fi ñëpp nag mënuñu nekk ministre ñëpp mënuñu nekk DG ñëpp mënuñu nekk PCA ñëpp mënuñu nekk des administrateurs. àdduna noonu lay doxee te noonu la ko yàlla bindee nga nangu ko moo am nangoo ko moo ne parce que ah, wërsëgi bokkul waaye nag ku jéemul dara nag du am dara baykat bi xëyul suba toog rek tëdd këram gàncax bi génn dugub génn fa walla gerte génn fa masale xam nga li ngay li ngay wax nii mais li ngay wax nii li ngay wax nii dafa jóg dem bëyi góob ko yàlla wàccee ndox

man bu ma gis mukk di ko weccoog loo xamante ne amut la ñu wax lu leer la financer leen ndaw ñi accompagner leen former leen dimbali leen assister leen loolu la ñu nekk di dox ku ko bëggul nag mënuñu la ko si forcer mais képp ku am sa projet mu fiable xam nga défendre la politique de défendre la politique de l'emploi fii tey Sénégal nga yeewoo Thiès fii ci Kajoor gii gis li nga xam ne mooy manque d'infrastructure amul entreprise amul foo xam ne ay ndaw mën nañu faa xëy nga gis ay ndaw yoo xam ne jàng nañ am seen ay diplôme di ko takkale te mënuñu gis ñeneen ñoo xam ne comme ñu nangul la ko dañu yaafus ñu nangul la loolu mais des gens yoo xam ne l' état ne crée pas des entreprises mais daf ko war a créer les conditions pour ñu am liggéey et malheureusement amuñu ko ANSD def li nga xam ne moom mooy euh, rapport bu mu génnee wax le taux de chômage fi mu toll ci Sénégal boo ko bëggee défendre fii Mamadou Lamine Massaly euh, dinaa ko défendre si ay dëgg parce que dama si xam ay ndaw yoo xam ne même bu concours jotee man maa leen di forcer na leen def leen ko

ñaari société privée ñoo nekk Thiès est que ñoom jóg nañu dem uti liggéey liggéey kenn du ko gàttanu soxna si. da ngay jóg mu jaral la ko nga dem uti ko ñi ci plateau bi ku fi nekk hmm. hmm. am ne moo tëdd nelaw nag di xaar état bi. non mais ils ne sont pas là xëy da koy gàttanu. nit da ngay mais xëy yëpp état bi ko di dox jaay ñii toog di ataay dañ leen gën menuisier métallique yi

kon xanaa yow. y' a combien de sociétés qui sont là Apix di nga gis société morne yi juddu chaque jour. je ne parle même pas d' Apix même d' Apix y' a que société privée ñoo nekk Sénégal di employé ay ndaw bëri na. mais kenn dooleel bugguma def publicité. mais amna na. yii ngeen teg fii yii ngeen teg fii yii ngeen teg fii bu ñu amul woon ndimbalu état est-ce que tey danañu taxawal ba ñu jox leen. ci toogaay bii ana Eiffage ana ñu ñu cité ana Eiffage. Mais chantier Il y a des jeunes qui sont employés. Bah, si pour moi, je me dis pas plus de 2000 jeunes. Mouille des faits. Euh, conseil des ministres euh, Thiès euh, Lamon, le président de la République, a fait 4 jours ou 3 dans la région tey ban suite bu favorable la waa Thiès mën surtout jeunesse bu Thiès ci conseil des ministres Bob nga euh, président Amna. parce que en général bu conseil des ministres am amé ci région c'est pour améliorer améliorer, euh, améliorer dundinu région bi rawatina euh, jeunesse yi nekk ci gox boobu tey yow étant doomu Thiès nga fekkee peut-être bëri ci conseil des ministres bi Bonne suite bu favorable la région de Thiès mona ti conseil des ministres Bob. waaye ben, suite tout favorable bi bëri la preuve. président commencé won nako ñu ngi koy yeggali di ko matal ku duggu ties entrée bi xam xar kanu kanamu dëkk bi soppeeku na parce que récemment yaa ngi foon gis nga travaux yi gis nga liguey bi ak avancement bi nga xamante mu ngi am ci dëkk bi ku xooloon tiesu demb ak tiesu tay xam ya une très grande amélioration parce que les choses sont en train de se parler d'elles part lolu peut être ci côté infrastructure côté euh, comme ni ko Ndeye Fatou waxee euh, liggéey beeg yu ni mel euh, lan lañ ci mëna xaar ci ci ci lolu c'est par rapport à quoi. par rapport au conseil des ministres boobu c'est-à-dire yan mbëbët au-delà de réalisation tali ak yoy parce que gis nañu ties que ni changer na carrément lolu ku ku ku ties Thiès ties euh di nga def setlu bi mais mm-hmm. au-delà de lolu tay tey euh, nouveauté la ñu mën xaar ci région. nouveauté moy train train train euh, Dakar Tamba bi réhabilitation chemin de fer vous, vous, euh, euh, vous, l'avez vu en dehors de ça il y a l'université bi nga xamante ne tabax transforme ko ko ko ville nouvelle bi nga le président ndërmal muy Mbour mais lol, bu amoon impact opposition duñ gagner Thiès ci élection locale yi. su amoon impact. bu doon nguur gi li def Thiès amna impact ci population bi kon Thiès tay du basculer ci euh, loxo opposition. mais xam nga xam nga man bi ngay wax lolou jamono bi man opposition la néwon. woon. te ñëpp xam nañu né Sénégal ma doon favori bi ci candidat yi au niveau de la commune de Thiès Ouest Lolou ñëpp xam nañ ko. Non def ba perte ko. mais campagne moy sos xam nga fait amna na fu muy

L'homme est un être nuisible à la population sénégalaise. Voilà un homme versatile, dangereux même pour la cohésion sociale. Quelqu'un qui ment du lundi matin au dimanche soir. Mais Massali, depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure. Non, je n'en sais personne. Je n'en sais pas. Balen di wax. Wa fi, il ne s'agit pas de ragal. ou bañ a ragal mais xam a toog ci plateau. loolu lay nduru Fatou yenn kaddu yenn kaddu yenn kaddu de toute façon du ma demande parce que je le connais.

qui est un ngeen bëgg si ànd ak moom il faut arrêter par la ci nga dëgg dëgg kenn du ko raay man du ma raay dëgg man du ma ko raayal benn doomu aadama ku ko mënul bu ma invité si plateau mais dëgg man fu ma fekk fa la may bàyyi waaye ji mënut a taxaw fen fi ay fen yu leer askanu Sénégal gis ko koo xam ne lu mu wax tey balaay cinq minutes mu génnaat beneen wax nga toppaat ko mu soppi ay waxam ngeen taxaw fi naan ma ay est-ce que nekkoo du acharné sur la personne Ousmane Sonko est qui est-ce qu'il est est-ce que Sonko est-il plus sénégalais que nous Modou Lamine Massaly est-ce que Sonko ñu moo ñu gën ñu est-ce que Sonko moo ñu gën a bëgg réew est-ce que Sonko moo ñu gën a moo ñu gën a bëgg Sénégal on se calme mais quand même il faut arrêter ñu wax ñu wax ci débat bi au lieu que fi nga ñu bëgg a yóbbu ci débat bi yóbbu ma leen fenn dëgg moom dëgg fu ma fekk fala may bàyyi il n'a aucune vision c'est un criminel c'est un danger permanent je l'assume parce que j'ai l'impression depuis tout à l'heure quand même que si ñu eu waxu troisième mandat euh, ñu dellu ci Ousmane Sonko euh, wax